أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma al anbiya alayhim salaatu wassalaam ñoo ngi ak yéen ba tey ci yonent yàlla ayub alayhi salaam ñoo ngi tollu ci fàttalante ak yéen waxtaan ak yéen ci soxnaam soosu nga xam ne mooy azawjatul wafiyatu soxna si nga xam ne matal na kóllëre te xam ngeen ne loolu la ñuy doyee soxna mooy jigéen joo xam ne day nekk ci ginnaaw borom këram waaye ànd ak moom ngir yàlla ci jàppale ko dimbali ko suturaal ko yiir ko aar ko loolu la soxna Ayyuba def laqad taala al marad ala sayidina ayub alayhi salaam feebar bi yàgg na trop ci yonent yàlla ayub xataa rafadahu al qarib wal baid ba ñépp bañ ko ku jege ak ku sori ku jege ci wàllu deret bañ na ko ku sori ci wàllu deret bañ na ko ku jege ci wàllu dëkkandoo bañ na ko ku sori ci wàllu dëkkandoo bañ na ko ñépp bañ ko ñépp daw ñu ngeen ne doomu aadama yi loolu la nit ñaa ngi ànd ak yow fekk yaa ngi tal yaa ngi mën nit ñaa ngi lay bàyyi fekk mënatuloo amatuloo yorotoo loolu mooy jikko doomu aadama yi wan sarafa anhu naas nit ñépp soppeeku ko daw wëlbateeku ko won ko ginnaaw ñi mu mën a doon yépp walam yabqa maahu illa zawjatu kenn desul ak moom lu dul soxnaam ñëpp daw ñi ko doon ziar si ñi doon ñëw këram ñi ko doon seet si ñi mu doon dimbali ñëpp daw kenn ñëwatu fa kenn doomu la dese mooy soxnaam alwafiya assaabira soxna si nga xam ne dafa matal kóllëre soxna si nga xam ne mun kaj la allati kaanat taraahu wa tuxafifu anhu xatta nafida maalaha soxna si rekk la dese soxna soosu nga xam ne moo doon sàmm waa ji di oyofal ci moom métit gis nga bokk na ci lu ñuy doyee soxna mooy ku lay jàppale waaye di la dimbali boo amee alal mu dimbali la ci aar alal ji du yàqu soo amul mu muñ loola boo feebaree wala nga am ay nattu mu oyofalal la ko comme ni Xadija defoon yonent bi yonent bi mu jógee xaaru xira ñëw naan zammilu ni zammilu ni dàqali ko ak sagoom lu nu ko Xadija dox da koo jël sàngu ko bi mu ko nettalee histoire ba pare lan la ko soxna si wax kalla déedéet yow yàlla du la toroxal lu tax parce que da ngay def nàngam da ngay def nangam di ko limal yi muy def kon yow yàlla du la gàccal noonu la jigéen ju baax di mel mooy sa jëkkër bu wàccee indi problème jàngeen histoire soxna soosu nga xam ne benn doom la amoon ak borom këram borom kër gi bëgg doom ji torop bëgg mewu ko borom kër gi xëy xale bi faatu tey bu doon fii ci ñun la su borom kër gi xëyee xale bi faatu dañ koy woo rapidement ci woo bu doy waar bu waroon dem bu waroon ñëw Dakar mu jubal dem Tëngéej wala correspondant jam ñaajo ndax lan ndax jaxasoo ndax niñ ko woowee waaye soxna soosu bi mu xamee ne borom këram mi ngi wàcc dafa toggal xale bi lekk sàng ko ñëw teg ndox mi ak lekk bi ci wetu xale bi daal di koy sàng daal di noppi jëkkër ji wàcc rek bëgg a daw ci xale bi mu ne ko day nelaw li ñu gëj a am ci moom moom la ñu am tey mooy lekk na nelaw na gisoo lekk bi ak naan bi te mu ngi nelaw bul ko laa bul ko yee léegi nu ñuy def mu ne ko comme yaa ngi doog a wàcc ñëwal noo tànqal la ndox nga sangu noppalu añ après dina fekk mu yeewu na si daat dem waa ji daat dem salaamaaleykum sangu añ noppalu fi mu tëdd di noppalu soxna si ne ko tey daal histoire bu doy waar moo amoon ci koñ bi ban histoire moo fi amoon mu ne ko suñ ñaari dëkkandoo ñoo doon xuloo waa ji mu ne ko lu leen boole mu ne ko kenn ki dafa abaloon kenn ki ay bagage mu ñëw di jël si bagage yi ki ñu abale woon bagage yi ne du ko delloo kenn moo abale woon bagage ki ñu abaloon bagage yi ki abale bagage yi di jël si ay bagage am ki ñu abaloon bagage yi ne du ko joxe loolu loo ci atte mu ne ko xanaa ki ñu abaloon bagage yi dafa dof ku abale kay am nga droit jël si sa bagage te boo ko jël see dañ la ko war a jox te warul am histoire warul am xuloo warul am xeex kaa ku wax loolu yaa atte loolu mu ne man maa ko atte kay ana gaa yi anañu dañ dem ma àtte ko mu ne ko ah waaw kon bismillah kii kan moo ñu ko abaloon waa ji ne teg mu ne ko kii tëdd fii ku ñu ko ab joxoon mu ne ko yàlla mu ne ko jëlsi na ko ndeysaan gis ngeen soo amee soxna su ragal yàlla su baax maanaam lépp day baax moo tax jigéen du du du lu ñuy def léegi nii rek ñëw rek takk dañuy tànn soxna dañ koy tànn yeneen bi nee na képp ku tànn soxna bu amul diine dóor nga sa loxo ci ëkk dóor sa loxo ci ëkk lan mooy dóor sa loxo ci ëkk kenn tey su meroon tey ñëw dóor miir bii nooy def ndax bu ñu la nee dóoraat da ngay dóoraat kon soxna dañ koy tànn gis ngeen Ayuba dafa tànn soxnaam moo tax soxna si taxaw ci wetam di oyofal métit bi di ko jox alalam di ko liggéeyal soxna si bu amul sax mu dem lijjanti ji ay bagage am mu jaay ko pour waaji am lu mu faje problème am wa kaana ayub alayhi salatu wasalaam yazdaadu alaman wa huwa yara zawjatuhu qad tabaddalat xaalaha min alghina ila alfaqri wa min alnaimi walraxaai ila azabin wa xidmati alxuraba ayuba fi mu tëdd bés bu nekk métit bi di yokk bés bu nekk loolu nag lu ko waral mooy asadda naasa ibtilaan al ambiya xam ngeen yonent yi nit ñu rawee nit ñu sutee nit ñu mënee nit ñu gënee ragal yàlla noonu la seen nattu di gën a méttee nattu yonent yi ñun attanul ko suñ ko nattu woon kenn ci ñun rek da ngay murtat attanuñ ko ndax ñoom lu tax mooy fu nu toll la mu ngi mel ne xale yuy jàng ki nekk jardin ak ki nekk primaire ki nekk CM ki nekk lycée ki nekk université bokkuñu ay épreuve wala ñoo bokk ku ñu même bu ñu doon def sport bokkuñu lu ñu leen di dawloo ci ay mètres noonu la nit ñi mel noonu la ñu yonent yi rawee ci ay natt moom ayub ma natt yi tar na bis bu nekk feebar bi di yokk mu gis soxnaam nu mu doon dundee démb dund bi soppeeku na jóge na ci mbégte mu ngi ci naqar jóge na ci leer mu ngi ci lëndëm jóge na ci rafet mu ngi commencé soppeeku jóge na ci am am dem ci ñàkk léegi sax soxna si day dem di liggéeyal nit ñi di mbindaanu di mbindaanu di raxas di fóot di baleel ay nit koo xam ne danga daan toog lu mat junni jigéen wër la di la liggéeyal tey nga dem di liggéey ndeysaan xam ngeen ne loolu ñëpp mënuñu ko de ah fii da ngay am benn soxna rek benn soxna rek laa wax nga am ñaari mbindaan yu koy defaral dara mbindaan yi xëy bañ a ñëw rek moom mu toog nga wàcc ana sama añ mu ne ah xale yi di xëy si wuñ cay allahu akbar sama yére yu tax fóoruñu ah fóotkat bi day ñëwul moom lu taxoon nga indi ko ci kër gi ñaata yoon ngeen naan ana sama yére ñu ne sa yére bi fóotuñu ko de lu tax fóotkat bi ñëwul tey waaw yow looy looy représenté ci kër gi fii lu tax raxasuñ ko tey karo yi kii bale ñëwul loo di jëriñ loo fi jëriñ gis nga ayub alayhi salaam mu gis soxna si tey mu ngi dem di liggéey ji di liggéeyal ñeneen at yi yàgg trop ayub nekk ci feebar nekk ci natt waaye fi mu tëdd mi ngi feebar yaram bi moo feebar de waaye xol bi ak xel mi feebarul lu sax mu ngi tudd yàlla fi mu tëdd feebar li ci gën a neex yépp mooy feebar boo xam ne yàlla bàyyi na la ak sa xel ak sa xol ba fi nga tëdd ngay dellu ci yàlla lu mu gën a neex ci feebar li gën a garaaw ci feebar mooy feebar boo xam ne dangay saalit guddi ak bëccëg yaa ngi tane tanewuma dara waaw ku la seet si nga ni man kay xam naa ne damay dee man kay xam naa ne fii ma toll nii yàlla daf maa war a rey sax ma noppalu ndeysaan am benn mbokk bu yàlla natt mu am ak jabaram problème jabar ji dem rek mu yónnee ma benn message est-ce que effacé naa ko ne sama jabar dafa dem man sama dund gi sax sama dee moo ko gën ko def ko déet waaye jabar ju dem kese loolu ëpp na di kay jaru ko bul saalit nañ dem liggéeyantewaat ko rek mu ñëwaat gis ngeen li ma doon wax nit ñi yemuñu ay nattu de xool kii nattu bi rek ni mu ko réelee bay wax ne dundam dee moo ko gën su feebaroon feebaru ayib fu mu jëm loolu moo tax yenn saa yi nga gis ndeysaan nit feebar ñu ne ko sàngara day faj feebar bi mu dem naan ko lu tax mu dem naan ko dëgg wér yenn saa yi nga gis ku feebar dem ci buxaaba yi ñu ne ko foog nga sangoo deret mu dem sangoo deret lu tax dëgg wér mënul muñ ba yàlla dindi feebar bi wala mu fajoo beneen faju bu bu dagan déedéet day dem fajoolu araam pour lan pour bëgg a wér léegi xalaatutul ne feebar bi nattu la yàlla moo ko teg mais léegi lu nekk xelam rek mooy naa ci génn naa ci génn naa ci génn rek nu ma ci génnee baax na bu bu araamee bu daganee sama yoon nekku ci loolu musiba la yeneen ci yàlla musal wa kaana annaas yaatufuuna ala zawjati baadama alimu ma xadasa li zawjiha ayub ndeysaan nit ñi léeg-léeg tàkk-tàkk bi nit ñi dañ ciy sotti essence jafe-jafe yi nit ñi dañ koy mettil feebar bi nit ñi dañ koy mettil problème bi nit ñi dañ koy yokk da ngay am jafe-jafe romb fenn au lieu ñu ne la massa du dara comme ni yonent bi daan def bu seetee ku feebar bu ñëwee mu ne ko laa baasa ku ko yeggali bismillah waaw yow am nga benn seede am jox ko seede am na benn seede seede lu ci nekk kitaabu tawxid moo ci nekk yonent bu seetoon ku feebar day wax laa baasa tahuur insha allah du dara yàlla moo lay fóot du dara yàlla moo lay fóot waaye yow da ngaa tilim yàlla mooy moo lay raxas allahu akbar ñun nag boo seetee ku feebar loo koy wax chtt mais c'est dangereux cette maladie là ah mba non gis di ko di di ko yokkal problème bu la jabaram rombee nga ci sa jëkkër ji sonn na am na benn benn salle bu nekkoon hôpital daan teg saal bi dañoo changé sax léegi tur bi soo amoon malaak ñu ne nga laajte anamu ñu ne mu ngi dante nga ni ban saal ñu ne déedéet laye nekk dëgg nag lan ki la ne laye nekk da nga naan ko ah, ah, la su ko defee ndeysaan waa ji di ah lan la saal boobu de ko fa dugg doo génn loolu nga léegi boo waxee nit ku feebar loolu lu koy lu muy def day dee wala nga wax loolu jabaram wala ay doomam mooy ñoom amul duñu yaakaar ci seen bokk bi nga xam ne kii day dee loolu kenn du ko def moo tax loolu la hôpital bi xam sax léegi ñu changé tur bi ndax nit ñi ni ñu ragale woon saal boobu ndax kuñ fa dugal rek soo ñibbisee ñu ne la waa moom de téye nañ ko nga ni ban saal nga ne ñu ne lan la ii jëli leen ko loolu ngay wax jëli leen ko foofu ko fa dugg doo génn loolu baaxul loolu nag musiba la nit ñi su leen soxna si rombee ñu ñu koy wax danger bi nekk ci feebaru jëkkër ji bu mu jugi ñuy daw soxna si naan ko yow sa feebaru jëkkër ji day wàlle te dina la wàll comme moom mënatul ñëw ci nit ñi yow yaay ñëw dina la wàll nga wàllunu bu fi ñëwati nag bul ñëwati sama taabal di jënd de léegi ma wàll ma ma dee parce que yow sa jëkkër ji dina la wàll nga wàll ko ñëpp ba nañ ko yow nga toog ak moom nit ñi di ko daw ku mu waxal doo ko doo ko faale ku mu nuyu doo ko fay kër gu mu bëgg a dugg ñu xëcc bunt bi tëj ndeysaan da daan dem sax di liggéey léegi kenn dootu ko jël ndax nee nañu wuu kii wóorul axasat azawjatu alwafiyatu tufakkiru kasiran ndaw si nag commencé tàmbali léegi nan laa war a def pour dundal sama borom kër dama daan dem sax di liggéey après ma am ci dara ma dem dundal sama borom kër comme def feebar mënatul dara léegi nag tere nañ ma liggéey boobu ni ñaa ngi may daw léegi nan laa war a def léegi mbir mi wecc metti na ba egg ci jafe-jafe boo xam ne moom ci boppam léegi amatul dara ndaw si mënatul def dara parce que ñëpp daw nañ ko mu tàmbali comme yàlla da koo dimbali ci alal la nekkoon ci féex la nekkoon ci yaatu la nekkoon doon toppatoo boppam yàlla mayoon na ko kawar gu gudd gudd gudd gudd gudd gudd mu tàmbali ci kawar googu bu léttee benn jubb bu tàmbalee ci bopp bi ba ci suuf mu daal di koy dagg daal di koy jaay noonu lay def génne du kii ñu ko génne waaw na ñaar jóg génne ko ñu tàmbali ndeysaan mu tàmbali di jaay ay kawaram xool leen xoolal la porte bi dàll yi ci nekk ayna huwa turaqibuhu yumkin an yaxuza nial raqibuhu ndeysaan ndaw si commencé di jël ay léttam di ko wàññi di dem di ko jaay lenn ci ay doom walla jabar ay borom alal pour am lu mu mën a jënd ci lekk ak naan daal di indil borom këram ndeysaan gis ngeen de jigéen ju baax bu borom këram amee problème lu muy njëkk a jaay mooy ay takkaayam walla mu jaay ay matériel am jaay ay meuble am gis naa soxna soo xam dafa jaay ay ay ay takkaayam pour fay ay facture kuna ak jënd dund parce que jëkkëram dafa am problème te kenn du ko yëg gis ngeen noonu la jigéen bu baax mel kii comme amatul matériel amatul takkaay lu mu def mu jaay kawaram di ko létt ba mu rafet mu dagg dem jaay pour jox borom këram mu lekk su ko borom kër gi ne waaw yow foo jëlee lii mu ne ko dama dem damay liggéey damay dem di liggéeyal nit ñi bu ma wàccee ñu fay ma ndax ragal wax borom kër gi sama kawar laay jaay ragal koo wax loolu at yi continuer feebar bi yàgg bis bu nekk feebar bi yokk ñàkk gi yokk tumaranke bi di yokk coono bi di yokk ñoom kenn cundum ñoom ñaar rekk amuñu famille amuñu ay mbokk yaa ay yub tëdd amul kenn ku dul soxnaam waaye moom maa zalika kaana ayub sabiran shakiran raadiyan bi qadaa illahi taala loolu lépp nag mu ngi muñ ndeysaan mu ngi muñ fi mu tëdd mu ngi muñ mu ngi sant yàlla ci yàlla teg ko mi ngi nangu ndogalal yàlla ñett yi dafa jafe de muñ sant yàlla nangu li la yàlla teg yi ñoo gën a métti ci imaan yonente bi mos na wax saxaaba yi amu uminuuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla Omar mu ngi woon ci mbooloo mi mu ne naam ñun gëm nañ yàlla yeneen bi ne Omar fa ma alaamati imaanikum luy wane ne yéen gëm ngeen yàlla Omar mu ne ko narda bil qada lu yàlla teg suñu kaw dañ koy nangu wa nashkuru fi raxa bu neexee ñu sant yàlla wa nasbiru alal balaa bu nu yàlla tegee balaa ñu muñ gis ngeen lii mooy lii mooy lii mooy imaan loolu la Ayyub def mooy saabiran mi ngi muñ shaakiran mi ngi sant raadiyan mi ngi nangu li yàlla teg ci kawam nit bu ko yàlla natoo day nangu ndogal nit bu ko yàlla defalee dara day sant yàlla ci loolu yàlla defar ko parce que yàlla lu mu def rek am na lu tax mu def ko yàlla deful dara pour hasard lu yàlla def am na lu tax mu def ko qad jaala allahu li kulli shay'in qad jaala allahu li kulli shay'in sababa sabab lépp loo gis dafa am sabab lépp loo gis am na sabab bu tax yàlla def ci biir loolu ayuba tëdd mu jékki-jékki rek dégg xiwaarun bayna rajulayni mu dégg benn waxtaan ci ñaari nit ñaari góor yu ko jege woon trop mu dégg ñooñu am lu ñuy déyante seen biir loolu naqari ko fi mu tëdd feebar am na wax yoo xam ne boo feebaree di ko dégg boo moytul dootoo wér dafa am benn waaye bu feebar ñu teg ko ci puus puus yóbbu ko hôpital ñëw teg ko ci ba table mu tëdd fi mu tëdd nii docteur bi ñëw xool ko balaa ñu koy dugal ci biir salle bi daan ne kan la àndal waa ji ne ko man mu ne ko kaay wala mu dem bu sori wala bu dugg ci bureau bi mu reculer deux mètres rek ni ko kii ni ko kii day dee ndeke malade baa ngi koy dégg daa ji ne ko ah mu ne ko kii day dee de bu yóbba nga delloo ko ndeke malade bi mu ngi koy dégg malade bi ñëw waa ji ñëw ne malade bi nan dem ñu indi oto arrière oto bi daal di koy jàppoo dugalaat ko xam ngeen malade bi fu mujj mooy loolu mu dégg lan la def ci moom muy kawar gi commencé weex kawar gi commencé weex ci saase bés bu nekk muy gën a jeex benn bis benn waaye ne ko mais yow lan moo la def ni mu ne ko ah damay dee ku la ne dangay dee bi ngeen demee ci hôpital bi docteur bi wax na leen ko bi mu koy wax diw dégg naa ko nee na damay dee léegi kooku lan lay nekk mooy nekk ci xelam bis bu xëyee mooy damay dee bu ngoon jotee damay dee bu guddi jotee damay dee loolu kenn du ko def kenn du ko def nit ayub mu dégg ci ñaar ñooñu ñu ne xam ngeen lu tax ayubu feebaram bi yàgg keneen ki ne déedéet mu ne laqad aznaba zanban aziman looloo tax dafa def bakkaar bu garaaw loolu moo tax yàlla feebarloo ko wa illa la kushifa an maazal bara bu tooñul woon yàlla kon yàlla dindi na li mais li tax yàlla teg ko lii mu ay at yi mu tëdd yëpp mënut a wér kii dafa tooñ yàlla ndeysaan ndeke dégg na ko keneen ki nee nañ moom moo ñëw rocceeku daal di koy wax ayub bi mu ko waxee ayub ayuba daal leen di woolu ñoom ñaar ñu ñëw mu leeral leen ne fii ma tëdd tey tëdd naa fi fukki at ak ñett ak juróom-ñett 18 ans maa ngi tëdd ci lalu feebar 18 ans dama feebar waaye nag du lu ma tooñ yàlla de yàlla moo ma nattu kese muy xool ndax dinaa muñ wala dinaa saali tooñu ma sama borom bu fekkoon ne aussi tooñ naa ko maa ngi koy ñaan mu jëkkal moom ba ñaar ñooñu ndeysaan ayuba dindi na ci ñoom ci liñ doon sikki sàkka ci dafa ne dafa tooñ yàlla moo tax du wir ayuba dindi ko ci ñoom ba ñoom foo leen gis dañuy tudd yàlla di dellu ci yàlla pour ñaanal ayub yàlla wiral ko waaye ayuba sax loolu ñuy def woona leen ci wax ak ñoom pour ñu def ko ngir yàlla bañ koo def ngir ayub parce que jaamu même bu fekkee du yàllaa tax sooy julli ngir nit julli googu amul njëriñ booy saraxe ngir nit amul njëriñ booy woor ngir nit amul njëriñ booy ragal yàlla wala ngay def dara ngir nit moo la koy def loo loolu amul benn importance ayub alayhi salaam yuqsimu an yadriba zawjatahu ayub am na xew-xew bu xew mu giñ fi mu tëdd feebar ne dina dóor jabaram lu tax ndax nekk na ci balaa bi ci mettit bi ci feebar bi jabar ji di continuer di jaay kawaram léttam yi mu bañ a bàyyi loolu di ko jaay di indil waa ji muy lekk ba benn bis rek ayuba daal di jël décision daan ne man kii dootuma lekk-lekkam lu dul mu wax ma lii muy indi fu mu ko jëlee loolu nag borom kër yëpp war nañ ca bàyyi xel léeg-léeg am na ci borom kër yoo xam ne dañuy xëy sa jabar ne la ana ana dépasse bi nga ne ko lijjantil te yoo xam nga ne kii liggéeyul jaayu fóotul paasewul nga ne nga dem bàyyi ko kër nga ne ko lijjantil fu mu koy lijjante nga wàcc ñu tegal la añ guddi jot ñu tegal la reer te yow joxe woo war ngaa xoolaat sa bopp ñun ñëpp war nañu jàng ci histoire Mariam Mariam keroog ba Zakaria duggee ci moom fekk palaatu fir wi tegu fir wi boo xam ne warul ñor saison bi waxtu wi waru cee am xam ngeen ne fii ma toog di wax ak yéen am na fir wi yoo xam ne instant bi amul comme mango amul ak mboq amul comme madd amul comme am na yoo xam ne léegi amul il faut saison bi ñëwaat Zakaria bi mu duggee mu fekk lekk yooyu nekk ci tu Mariam lan la ko wax kan moom may indil aaya bi loolu da ko indi dina am seede ah commencé la aaya bi ci commencement bi yaa Mariam
ana ana yakun yaa maryamu dee ngi ci ak anna mu ngi ci de nga xaar leen sama góor gi tamit bu leen ko xeex yaa maryamu annaa laki haazaa maryam foo jëlee lii maryam foo jëlee lii gis nga loolu borom kër gu nekk war nga koy laaj sa njaboot borom kër gu nekk war nga koy laaj sa soxna wala say doom yu jigéen wala sa doom bu góor wala soo ñëwee nga gis sa doom yor dara wala sa soxna yor dara wala wala wala wala war nga ko ne lii foo ko jëlee mu expliqué la nga xam waaye da nga gis tey benn paa bu wàcc doomam ñëw présenté ko benn portable deux cent mille cinq cent mille foo ko jëlee mu ne sama diw moom ko may rek point ah rafet na de macha allah nañ weccoo kooku moom looy xam nañ weccoo nañ jox ma bi waaye rek gis loolu c'est dangereux borom kër du def loolu ayub tey mu ne du ma lekk kii lekk bi muy indi ko mu am fu mu ko jëlee léegi nag ndaw si fas yéene koo leeralal dëgg bi ne ko man mi kat dama daan liggéeyi suñ ma fayee ma jënd lekk indi jënd naan indaale bu may ñëw waaye toll nañ jamono boo xam ne nit ñi nee nañ sa feebar bi dafay wàllaate ding ma ko wàll ma wàll leen ko léegi kenn nangutul ma wax ak yow waa ji ne ko kon foo jël lekk bi mu ne ko sama létt yi sama kawar gi laay létt après dagg ko dem jaay ko lenn ci ay doomu borom alal wala soxna borom alal yi suñ ma fayee loolu laay jaar marché jënd lekk jël naan après ma ñëw indi ko ñu lekk ci ndesa ayuba ne ko wallahi bu ma wéree dinaa la dóor téeméeri yar ci lii ngay def ba mu wér daal di koy mere incha allah mbokk yi ci téeméeri yar yi ayuba ne bu wéree dina ko dóor soxnaam fi lañuy taxaw dars bi incha allah ba samedi bii di ñëw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu